dali na jàmm ñoo ànd xëy yar yéenekaay ñu a yéenekaay gi di réew mi ko di jen xëy du ñu xibaar naan ñu niki démb xaw ma ban réew moo yënguwul démb ci àdduna bi waaye réew mi di Sénégal bokku ci mën la Sénégal démb yëngu na ba mara détail Sénégal pëccëxoo na manifestation yi mel ni tulleeg màlle réew mi ko di jen nee na li tax réew mi yëngu démb mooy la woon atteem Ousmane Sonko ak Mame Mbaye ci lu jëm ci 29 milliards yu Prodac yi waaye nag atte boobee dañu ko mujj dàq ba fanweeri fan ci weeru mars bu ko defee mu nekk audience spéciale journal bi nee na Ndakaaru Njaay jël joppa niki Ndakaaru Njaay tàng na jër Dakar tàng na démb yéen a kaay gi nee na Ousmane Sonko dañu ko daal di malmené daal di koy saax-saaxe ñi nga xam ne ñooy waa BIP ñoo def lu ni mel ni démb daal di koy jël dugal ko seen oto yi daal di koy yóbbu waaye nag avant ñu koy yóbbu ak ñu koy génne ci oto boobee maanaam jàppante yi taroon na lool journal bi nee na tribunal la ñu ko mujj yóbbu audience bi am ni ki démb ci tribunal ba diggante Ousmane Sonko ak Mame avant ñu koy dàq audience ba tàngoon na jër yéen a kaay gi de leen fitna ju métte métte métte yéen a kaay démb manifestation bu tàng moo am ci réew mi ma ne la journée démb bi tàng na bëccëgub démb bi doy na waar lool pëccëxoo gu rëy moo am ci réew mi bëri na ñoo xam ne teg nañu leen loxo foo xool ci ndakaaru maanaam ma ngay tàkk journal bi nee na bëri na loo xam ne dañu ko yàq am na ay bus yoo xam ne dañu koo tàll am na station service yoo xam ne dañu ko saax-saaxee na nay ausan yoo xam ne dañu koo attaqué yéenekaay gii di la regard xëy tënk kàddu yëpp nee na journée gatsa gatsa maanaam démb bëccëgub tàng amuñu droit amuñu sañ-sañ bañ a waxtaan waxtaan mënutut a ñàkk xëy di ko dëggal ci biir bi nee na bi ak bi jamono ji ak tolluwaay réew mi que tension politique bi waxtaan munta ñàkk yéen kay gi di ko di jeex xëy duñu xibaar naa ndakaaru njaay jël jóob démbu lépp taxaw économie réew mi taxaw na école yi ñu tëj ko am ñetti bus yoo xam ne dañu koo taal yéen kay gi la tem mooy nee na journée de kaaw démb mën nañoo jàpp ne Dakar kaaw ci la nekkoon Ousmane Sonko fitna bu rëy la ñu ko technique démb ba tey ci journal bi de la témoin moom Ousmane Sonko ñaawlu na bu baax a baax tentative d'assassinat bi nga xam ne moom la ñu ko bëggoon a def loole la wax moom Ousmane Sonko ndax nee na ñii dañoo bëggoon a jël bakkanam journal bi di Vox Populi xëy du ñu xibaar naa ñu Ndakaaru njaay jël jóob Ndakaaru tàkk na maanaam deret tuur na démb Ndakaaru waaye tamit foo xool maanaam ma ngay tàkk ma ngay boy yéene kaay gi nee na bëri na loo xam ne dañu ko yàq Ousmane Sonko njiitul Pastef dañu ko jël yóbbu ko hôpital ñu ko hospitalisé Ousmane Sonko dafa feebar nee na ci suufu biir bi mooy metti ba pare am jafe-jafe ngir noyyi am miir yu méttee yoo xam ne maanaam moo ko dal loolee moo dal Ousmane Sonko jamono ji ma nga ca lalu hôpital ba journal bii di direct news ñu xëy fekk fa Mame Mbaye Niang nee na en am ba de sàll ay weere ngi nii ñu may sosal di fenal te nag loolee mënatuma koo nangoo te Ousmane Sonko mi nga xam ne nee am na am na ay poussé na ndax avocat bi di maître Ciré Clédor Ly moom tim démb dañu ko gazé yéenekaay gi di bés bi ñu xëy fekk fa waa Benno Bokk Yaakaar lañu xaw ma nag ñoom dañuy nax seen bopp wala naxuñu seen bopp waaye daal en ñoom nee nañu démb xale yi génnuñu ci mbedd mi waxi waa Benno Bokk Yaakaar la journal bi nag nee na ñi nga xam ne ñooy waa leaderu Yewwi Askan Wi démb dañoo bëggoon a amal ab janoog taskatu xabaar yi ci siège PRP dañu leen ko tere bu baax ñi nga xam ne ñooy takk der yi yéenekaay gi de la Témoin xëy di ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy takk der yi di force de l'ordre yi ñoom tim démb ñam nañu mal mën nañ leen maanaam gatsa gatsa bi niki démb tar na lool diggante ñi nga xam ne ñoo doon manifester ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi mën na la jàmmaarloo bu metti moo am seen diggante ci ñaari côté yépp nag yéenekaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñoo doon ko daal di yàq ñaari téeméer ci ay xale yoo xam ne teg nañu leen loxo am na yoo xam ne taal nañu ko am ñeenti bis yoo xam ne yàq nañu ko am na benn garde corps Ousmane Sonko boo xam ne bal la ñu ko dóor ci tànk bi yéenekaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu journée de confrontation bëccëg boo xam ne bëccëgub jàmmaar loola ma na la mbir mi démb taroon na loola ci yoonu bi ñuy dem tribunal ak bi ñu renvoyé procès bi mbir mi taroon na ma jéggi dayo journal bi nee na maanaam manifestation yeek yëngu-yëngu yi du woon Ndakaaru Njaay jël jóob rek la xëye woona ma ne la biir Sénégal bëri na ci ay gox yoo xam ne démb xale yi wàcc nañu ci mbedd mi tàngal ko ba mu tàng jër journal bi nee na am na ay agence yoo xam ne dañu ko attaqué agence bu Sonatel ak ONAS ak CBAO yéen kaay gi nee na fanweeri la ñu jàpp atte bi audience spéciale gi de xëy fekk fa Ousmane Sonko nee na dañu koo gaañ final ko ba pare daal di koy dóor Abdou Karim moom nag nee na justice bi yoon ni mi doxee amul kenn koo xam ne mën na koo bloqué yéen kaay gi ñu fekk fa Abdou Mbow moom nag nee na ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi manipulation yi nga xam ne moom la ñu nekk la ñu war a bàyyi yéen kaay gi de l'info ñu xëy xam ne jamono ji ma nga hôpital nee na dañu leen arrêté démb ba pare daal leen di gazé moom maître nee na jamono ji ak wàllu wér gi yaramam dafa sooxe ba jéggi dayoo yéen kaay gi di source ak xëy dañu xibaar naan ñu maître Sidiki Ly démb malaise la def yéen kaay gi nee na ndakaaru njaay jël jóob démb tàng na jër waaye banlieue bu ndakaaru tàng na bëri na tamit ay gox yoo xam ne tàng na jër niki démb yéen kaay gi di source ak xëy dañu xibaar naan ñu ci ndakaaru weeden ba tàngoon na jër waaye tamit Parcelles Assainies démb tàngoon na jër waaye tamit Médina démb tàngoon na jër waaye tamit Kër Massar démb tàngoon tàngoon na jër waaye tamit Rufisque démb na jër ma biir ndakaaru démb tàng na jër yéen kaay gi nee na en bi dox diggante takk yi ak ñi xam ne ñooy farandoy Ousmane Sonko yi démb tàng na jër kenn muyul sa morom lenn yéen gi de Les Échos xëy ñu xibaar naa ñu agence bu Sonatel bi nekk Soprime dañu koo songo Auchan bu Mermoz bu Dior dañu koo songo yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy Sonko démb def na ab déclaration di jéebaane ñu xëy fekk fa Macky Sall ak ñi mu àndal jamono ji maanaam dañoo paniqué dañoo tiit ba mara détaillé moom Guy Marius Sagna nee na démb dafa am benn pompe boo xam ne moom la ñu leen pompe ci seen bët yi diwaanu Mbàkke démb tàng na Mbàkke tàng na jër journal bi di Le Quotidien yor yora moo xëy di ñu ko xibaara ndax nee na Mbàkke ca diwaanu Tabla Jaabi foofee tamit tàng na jër ak yoon wi jëm Daaru Salaam xale yi Mbàkke yi démb tàngal nañu Mbàkke journal bi de La di laajte ñi xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñi xam ne ñoo doon mboowa ndax nee na am na ay grande yoo xam ne ñoo fi di woo opposition wàllum mortal combat waaye nag démb bi xale yi wàcc ci mbedd mi kenn gisule na ku ci mel ni Pam Malick Ndoura journal bi de la témoin nee na bëri na xam ne ñoo ngi woon ci seen suufu lal yi boole ko nag ak lox mu métte métte yàggatul dara ñooñee ñooy génn nag tàmbalee wax maanaam ay discours de guerrier te nag bi mbedd mi tàngee kenn gisule na yéen kaay wal fajiri xëy ñu démb Sénégal da maanaam bëccëg boo xam ne amuti frein journal bi nee na mois ñu nekk soriyantoowul ak mois de mars 2021 bi ne tàngoon na jër gi de la Tribune nee na neexul ba neexul waaye réew mi jamono ji pëccaxoo na loola journal bi de Le Quotidien yor yora nee na deuxième vague ana ñi nga xam ne ñoo waxoon ne du fi am yéen kay gi di Direct News xëy duñu xibaar naan ñu atte bu Ousmane Sonko ak Mame Mbaye yoon yoo xam ne dàq nañu ko loole nag askanu Sénégal dañu see sonn ndax procès bi juralul jàmm Sénégal senegal daf ciy perte waaye nag ga gañuwu ci benn yoon ndax li nga xam ne moo ciy yàqoo dafa bëri ci ay dégâts énormes yoo xam ne moom la ñu si nemmeeku ay magasin ak ay bus ak station service yoo xam ne dañu koy daal di saax-saaxee kaay gi di sunu lambu xëy di ñu xibaar naan ñu combat Aliou Seye ak Modou Anta taxaw na